nga ñëw ci bu ñetteel bi boo ko soree la nga ko war a sore xool ko daf lay jox melo yaquutatan xamra per bi ngeen tuddee rubis waaw boobu melo la lay jox mooy bu ñetteel ba bëgguñu ku ko jéggi nag moo tax ñi yàlla reyagul ci yonent yi sañu ñu ko jéggi te buñ ko jégee te dañu soxla ñu dellu si te Isa ibnu ca la bokk ñi war a dellu ñépp ci asamaanu ñaareel bi lañu nekk ko jéggi dem ci bu ñetteel bi te bu ñetteel bi dafa jegeñ barsax waxuma barsax barsax mais barsax bi recevoir arwaax yi bu ñu wuyoo seen borom te yóbbooguñu leen HLM yañ leen wutal ñu dëkkandi fa ñu ngi ko aménagé diggante bu ñetteel bi ak bu ñetteel